pourtant il a répondu à à cette question sax mooy charte bi leen tënk je l'ai dit mooy charte bi leen tënk mais xalifa système ou anti système balaa ma koy balaa ma ciy dugg xalifa hmm. moo yàq dynamique boobu duma ko nangu hmm. moo tas yeewee parce que déedéet bu ñu nee moo tas wax nañ lu loo xam ne nii demeewul noonu wax nañ à la limite lu ñaaw hmm. il faut ñu analyser les actes xalifa pour mu dem ci dialogue bi dafa toucher les quarante six départements du Sénégal. ñun par exemple boo jëlee le département de Kër Massar on a fait un communiqué. boo jëlee le département de Pikine dañu def benn rencontre. Mhm. sous la coupole du maire mhm. de Thiaroye. Euh, Azur. Mhm. Euh, maître El Malick Ndiaye. Mhm. qui dans les liens de la détention. Mhm. ñu koy exprimer tout nos toutes nos nos pensées di ñaan yàlla mu xat-xat yooyu mu génn ci. maître El Mamadou Ndiaye. El Mamadou Ndiaye. plutôt je m'excuse. donc maître El Mamadou yal na ko yàlla génn ci. parce que chaque c'est quelqu'un de très très très posé. quelqu'un de très très compétent et quelqu'un de très très poli. Pikine dañu def lël. donc chaque département s'est débrouillé. ñu yéegal ko au niveau national. ñu jël ko au niveau quartier général ñëpp ne ne ne ko demal. Mm-hmm. mais il doit légaliste et loyaliste. mais moment boobu fekk na pacte bi étudié existe na ba pare au sein de Yewwi. quel pacte. déedéet déedéet charte bi charte charte yi les les les douze chartes wala onze chartes. déedéet wala douze maanaam booba booba. Mm-hmm. defuñu euh, rencontre des leaders mooy. en euh, a un terme conférence des leaders. conférence des leaders ci. Mm-hmm. ndax jamono yooyu Ousmane Sonko mi ngi bunkeriser woon à Ziguinchor da doon def ay ay live wala muy génn ay vidéo mm. te ci vidéo yi te la toog mu ne demul ci dialogue bi yablewul ci dialogue bi mais le président Khalifa fort de tout ce qu'il a reçu dans les quarante six départements plateforme ne ko demal day dem parce que il faut être légaliste. Mm. bi am mooy dafa waroon am une rencontre de la conférence des leaders. Leader. que devait convoquer Habib Sy. qui était le président président. oui dañu waroon toog def lël mu am benn décision mais amul on s'est parti en lambeaux que génn toog Ziguinchor wax est-ce que waroon na wax ki jot les 46 départements ñu ne ko defal lii est-ce que kooku mun na ne du ma ko def mais mais mais monsieur le maire mais mais monsieur le maire monsieur le maire. monsieur le maire dialogue ba lan moo fa am. non monsieur le maire. lan moo fa monsieur le maire. waaw monsieur le maire. Mhm. Euh, charte yi ngeen teg. pour mhm. fonder Yewwi. Mhm. charte yooyu. terewu leen. Euh, charte yooyu point point boobu. négociation avec le président. Macky Sall kay lañ wax sax lamiso de de proche et de loin. Mm. du am de près ou de loin. loolu sunu loolu loolu quand même je pense mm. bien. mais mais mais mais dialogue phase de bi indi amnistie mais mais de près ou de loin la. non boobu mën naa la ci wax dara boobu de près ou la après nga wax ci. <laughs> donc dialogue bi première mhm. phase dialogue bi. Mhm. dafa leeroon naññ. Mhm. aux yeux et aux vues tout le monde. la fa xalifa wa bu ci amee un mot. boo xam ne traversé na li de yeewi nañ ko wax. parce que la mu fa wax lool la yeewi wax. ñu dem ci biir dialogue bi la mu la mu la mu la mu génnee. sauvé nañ la candidature de Karim Wade. sauvé nañ la candidature de Khalifa Abacar Sall. Mm. mais mais dialogue boobu aussi andi na. assouplissement suuxal la candidature de Ousmane Sonko quand même. non non kenn waxtaane wu ko fa kenn musul toog. duñ ko fa waxtaane gis ñu naan nañu déedéet nañu wax dëgg rek te yàlla tax ña bañoon dem demuñu. mais ña dem défendre nañ bec et ongle esprit yeeyu bi nga xam ne moom lañ jëm. loolu moom moo am. mais c'est le minimum bu dialogue boobu dialogue boobu dialogue boobu may ma tuuti ma daaneel. moo assouplir mhm. parrainage bi. parce que tey bu ñu demee ba ñu ne. permettre nañ parrainage des élus. mais dialogue boobu moo ko waral. ak wàññi aussi pourcentage. bon wàññi semblant de wàññi. waaw mais en réalité ça ça n'est pas. fixe ko ci treize députés muy correspondre rek. ak li ñu am avec les de Khalifa. déedéet Khalifa ñun am nañ lu ëpp treize nous avons quatorze. donc bul ne mu yem nous avons quatorze députés. mais ñu ne aussi. mais de de Barthélémy Diaz bu doon yàqu ah. nga bu doon yëngatu. waaw waaw mën nga <laughs> non non non c' était le cas Barth même doon wax. suite à sa condamnation est-ce que du perte. Euh, possibilité pour mën a euh, parrainer. Hmm. mën a parrainer te xamuñu ne. ñun on avait quatorze. Hmm. et que treize heures mën nañ parrainer. Hmm, mais ñu ñu ñu sóoraale aussi que ne euh, au delà de wàññi nombre bi. et autres <coughs> mais gis nga faatu man tey mun naa mun naa wax. ne bu ma doonee maire dialogue moo ko def. parce que au sorti de 2019. y a eu un dialogue Khalifa était en prison. mais daf ñu yónni dafa yónni le coordinateur Saliou Sarr et compagnie ñu dem représenté ko. parce que il croit foncièrement au dialogue. c' est un républicain c' est un socialiste c' est un patriote. Ah, mais xam nga patriote mooy ku bëgg réew mi. may ma ma daaneel xam nga Khalifa moo ko njëkk a jénne ah. ma may ma may ma ma daaneel gis nga. bi bi 2019 dialogue bi lu mu indi moo ne désormais les élections locales dañ koy def par voie scrutin direct. Hmm. comme ni ñuy falee président. jeex na tàkk au suffrage universel mais ñu fal ay conseil conseil yi fal adjoint yi nag noonu lañ leen di fale ba tey. mais loolu bu amul woon tey mais man du ma falu maire. parce que premier tour dans la commune de Jaxaay Parcelles yooyu mën na gagné. mais bu ñuy defaat lël pour fal maire. ñu ñëpp xam ne man j'ai été conseiller depuis 2014. dans mm. la commune de Jaxaay ba ñuy fal maire en 2014. xam naa niñ ko. yaa lay tractation nocturne non doy waar parce que du moom la ñu waroon a. du ngeen nelaw guddee waaye on détourne vote d'ailleurs des Sénégalais wax na dialogue mm. baaxul wala waruñu ko woon def mm. non bu ñu basé wu trop ci intérêt crypto personnel. wala sa gis-gisu bopp. kii am na droit dem kii am na droit toog. man en tant que acteur politique bokk ci Yewwi parce que dama gëm esprit Yewwi ba fi ma toog mooy waruñu woon tasaaroo à qui la faute à qui la faute kan ngeen euh, mais le président pour man président conseil que conférence des leaders xam nga lu mu waroon wax eh kaa leen ñu topp Ousmane Sonko jëlal vol d'avion nga ñëw fekk ñu fii Ndakaaru ñu def seen lël am benn position dañuy dem mais mais tu sais wala du ñu dem tu sais que monsieur le maire ça c'était pas possible. ça si, si, possible non attends xam nga moo tax ma non c'était pas possible. lan ku nekk décidé lan pas possible parce que dafa am ay précédents yoo xam dafa am. muy lan comprendre nga parce que ni nga ko waxee li leen tere bokk élection présidentielle xam nañ ko. Mhm. Macky moo def ay njuuj njaajam. bien ba ba leen. Mhm. def ay njuuj njaaj ba écarté Karim. Mhm. Ousmane Sonko xam ne kii ci moom la jëm. tu vois. te bu fekkee ne deful résistance parce qu'il ne se laisse pas aller deful résistance ak ak ak waa ji ni mu leen def la koy def. Mm-hmm. est-ce que yaa ngi dégg wax ji. Mm-hmm. donc il a pris ses gardes mais avant loolu da ngeen tabax benn dynamique boo xamante ni Macky Sall bu ko songoon de moom mooy toj. Mm-hmm. est-ce que yaa ngi dégg wax ni mais Macky Sall il a fait tout pour toj dynamique boobu que dëkk boo xamante ni loi moo fay daw. Mm. ak règlement dialogue amu fa place. Mm. Macky Sall c'est un dictateur douce. est-ce que yaa ngi dégg waa ji parce que euh, euh, euh, nu mu tuddati ñëw leen ci dialogue bi ko ñëwul sa ku gedd sa yaaya aye kooku <laughs> président bu respecté peuple du ko wax parce que mm. troisième mandat bi laaj leen ma ko ci njekk ak teraanga bu ngeen ma ko laajul du ma leen ko est-ce que yaa dégg wax ji mm-hmm. yooyu ay problème dictateur la comprendre nga fii ñu ne bërët ñu ne bërët wax problème de xam nga Sonko fi dafa ñëw rek dal ne am na ñuy wax ak mm. Macky Sall ci suuf Barthélemy Dias jënd. wax ni man la te maag moom réeroowuñu te maag moom réeroowuñu de demewul noonu de ci guddi ah. Ousmane Sonko moo ne Ousmane Sonko moo ne uh-huh. am na ko bokk ci yeewi waaw Ousmane Sonko moo ko wax am na ku bokk Barth ne carrément man la moom amul lu muy nëbb man la waaw mais loolu laa mais est-ce que dañu bëgg ku dëggu wala dañu bëgg ku non attends xam nga xam nga non xam nga foofu sax dafa am lu nga xamante ni dafa am comprendre nga mooy que gis nga les politiques muy les partis au pouvoir muy les partis de l'opposition ñi ñuy représenté mooy peuple bi mhm. te peuple bi dañ leen di suivre de très près mhm. te xam nañ ne depuis mille neuf cent soixante ba fi mu toll nii mhm. peuple bi dañu leen di dañ dañ dañuy dañuy def ay kii ci seen kaw dañuy complot ci seen kaw bien sûr est-ce que yaa ngi dégg wax yi di leen manipuler di leen nelawal di leen exploité di leen utiliser ñu toll ci phase boo xamante ni dañoo war a libérer peuple bi. Mhm. mais ñi nga xamante ni ñoom ñooy représenter peuple bi. Mhm. comme opposition contre le système dañoo bëgg peuple bi dafay soxla ñooñu dem avec des idées claires. Mhm. pour mën a noppal peuple bi quoi. en quelque déjà tey jii amoon na benn kii bu am ci seen élection législative yi. ci wàllu titulaire. ak suppléant yi. boo xamante ni la convention des listes la. des listes li ko gënoon a tardé c'est les listes de tu vois ak Déthié Fall ak caricature pour Barth changer <laughs> ay affaire am foofu. am loolu c'est liste de Dakar. mais in fine liste qui a été invalidée. non liste titulaire. ok mais jawriñ jawriñ pour revenir rapidement au sujet. ok pour revenir wax wax a ñu jeexal. wax a wax ba dem ci benn dynamique. Mm. wax bi dafa leer. charte yi da ne ànd local. Mm-hmm. ànd législative. présidentielle ku nekk tas. outil lu ko la xam boote doomam dynamique boobu la ñu nekk di dund nii. Hmm. munoo wax wax ba. Hmm. ku nekk doon candidat. Hmm. après mu am dynamique. di parce que nit ki bu amee bu nekkee candidat day bëgg a gagné. bien tey yeewi ñaata candidat ñoo fa jóge bëri nañ waa ah, mais tey de le président Déthié Fall va gagner. le président mali Gakou va gagner. et cetera PUR va kon ana dynamique foofu mais wax ji mooy. bu ngeen demee deuxième tour bu dee deuxième tour am na le mieux placé. nañ dem jàppale ko oui c'était ça pour que ñu consolider. diggante bi nag ci mm. ci marché bi yaa a des points de vue différents mm. waaw ouais, mais dialogue phase 2 am na. Mm. parce que lu lan moo indi loi d'amnistie loolu baaxul ci yéen lan moo indi lan moo indi loi d'amnistie baaxul ci yéen waaw euh, Macky Sall xam nga lan moo tax indi loi bi. def may ma tuuti après nga ñëw. pour boppam la jàppale ma jëwriñ lan moo indi loi d'amnistie bi nga xam ne nii tey gis nañ violence yi fi am. amnistie bi ñan lay protéger. boppam Macky Sall ak njabootam lay. protéger donc du lu ñu waroon a xuus. non nja Macky Sall ak njabootam Macky Sall amnistie bi bopp moo tax mu des gens xëy xëy leen. mu renvoyé élection yi par quel moo ko indi moo arrêté élection yi à dix heures de l'ouverture des élections de la mais campagne de la de la campagne. c'est pas mooy def loolu. est que yaa ngi dégg waay tout le monde laa def loolu ba pare wëlbatiku. Mhm. di woote dialogue lu leer est-ce yaa ngi dégg wax ji donc. tey tey non attends xam boobu lan moo tax mu mu arrêté loolu woote dialogue pour dugal amnistie bi pour protéger njabootam ak ginnaam c'est pas pour jëndee Ousmane Sonko de. parce que non pas pour génne Ousmane Sonko ak waa Pastef non attends il faut il faut il faut que muy leer mën nañu nettali. lu génne Ousmane Sonko kon. xam nga lan moo génne Ousmane Sonko. Mhm. Macky Sall dañ ko ne gis nga booy bii booy booy booy booy jomaay bii jàll nga xamante ne prévoir ko woon. bu ngeen demee élection mu fekk ko ci prison bi. Mm-hmm. dina gagné cinquante quatre pour cent premier tour boo ko génnee nag dina gagné cinquante et un pour cent te Ousmane Sonko dem élection moo gën a oyof ci yow Diomaye dem nekk président. d'accord ce que yaa ngi dégg wax di non fii. donc c'est des calculs quoi. calcul Macky Sall day calcul bay dugg boîte vocale <laughs> mooy coow nga may wax Macky Sall. bokk bokk ñu ci gis-gis. et puis et puis yow et naka ngay mën a kiiwee que ni yow tey jii Macky Sall. da nga xam ne cause bi Karim wax ni dañoo ger waa conseil constitutionnel accuser premier ministre Macky Sall. Mm. Karim Wade lan la Macky Sall dina jëlal par Karim Wade Karim Wade jaral na ko koo xam mu yaa ko teree bokk yaa ko tëj. Mm-hmm. ba nga ñëwee yaa ko tëj exilé ko waxuñu cause bi tax nga exilé ko. Mm-hmm. kooku jaral na la élection ñëwaat mm-hmm. baayam daal di ne le 2019 accord de Conakry kañ la ñu waroon wax baayam na bu leen participer ci élection yi parce que Macky Sall. Mhm. Euh, élection yu mu organisé. bu ngeen demee ci fichier bi da leen di gagné. gagné na ko ba pare. Mhm. Macky Sall du organiser lu jaar yoon Ablaye Wade moo ko fi wax. Mhm. daal dina boycotté leen xotti leen seen carte d'identité dem Conakry ñëw noppi. neutre. tey mu bëgg taxaw léegi doomam te Macky Sall may organiser élection yi ba tey. doomam tax Macky Sall di renvoyer élection yi à dix heures de l'ouverture c'est pas même cohérent quand c'est pas même cohérent il s'est profité de cette situation là pour pour pour pour, pour protéger léegi monsieur le maire mayel monsieur le maire mu tontu a eu deux phases de dialogue yow ri kenn mënu ko natable deuxième phase bi la majorité de l'opposition demuñu même les candidats qui sont en train de concourir le le pouvoir suprême dans ce pays dañu demuñu mm. pourquoi parce que dañu ko ne président Macky Sall sa mandat dafa egg à terme dialogue bi war a mën a jëriñ Sénégal attendons d'élire un président légitimement. mu def foo ko woote dialogue dans un dans un large sens. dafa naa loolu lañ ko wax loolu mooy yoon. Mm. mais moom déroulé na agenda am. parce que am na lu mu bëggoon moom. étant président de la république. mais non indi na loi d'amnistie bi. loi d'amnistie bi am na aussi ñu ci profiter. pour pour pour maintenant pour nii nii nii am nañu ci profiter am seen liberté mais lañ ca dëxëñ. après la ko sénégalais yi di xam. loolu baaxul ci donc donc lan ngeen ci njox te yéen lan ngeen ci njox. non mais ils se ils sont en train de se protéger avec ñoom les gens du pouvoir. moo tax ma ne la. nii nii nii nii am nañu ci gis seen bopp. Mhm. ba am ci liberté. ma am ci ay xarit ma am ci ay xarit yu ma jege. am ci un conseil municipal boo xam ne heureusement libéré libéré nañ ko avant.